su dëggu bi Fatou Abdou ëllëg la waaye ba tey am na ñuy sàkku ci ñu dàq euh, élection yi ba beneen jamono waaw loolu moom je pense que ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo bindoon la collectif li ñu wax leer na que li ñuy wax moom mooy ñu xoolaat le processus électoral mais pas ñu reporter ces élec cette élection présidentielle ñi nga xamante ne également ñoom la ñu déggagum ñu ci bari jàpp nañu ne élection yi dañ ko war a amal euh, date échue maanaam respecter la calendrier électoral parce que élection locale de bëri na lu ñu koy dàq fii ci réewu Sénégal depuis 1984 élection législative dàq dàq ko fii mais nag Sénégal fexe na ba euh, préserver li nga xamante ne moom mooy le calendrier électoral ci li nga xam ne moo ñeel élection présidentielle et loolu euh, ñu ñoñal ko téye moom moo jik Sénégal aussi moom mooy tax ba euh, ñu mën a fexe ba combat bi nga xam ne les acteurs am nañu ko pour ñu respecter le calendrier électoral ñu mën cee def ay jéego et puis ñu am ci dëgg mhm. beneen bi nag mooy processus boo xamante ne ñi nga xam ne ñoo ko séq ñëpp jàpp nañ ne processus bu bëri ay rëq-rëq la et conseil constitutionnel bi nga xam ne dina prononcé mu war a def ci liggéeyam parce que ñi nga xamante ne moom mooy ñi ñi gis nañu ñoom seen problème ñi doublon externe ñi nga xamante ne logiciel bi li mu leen def moom mooy tëb leen ñenn ñi euh, ne leen yéen vous n'êtes pas électeur avant même sax ngeen di samp seen dënd loolu je pense que c'est un problème boo xam ne ñëpp gis nañu ko beneen bi am na ci jurisprudence yoo xamante ne ñu ngi koy wax instance Sangaré depuis 1997 mhm. muy concerné Ousmane Sonko concerné Amsatou Sow Sidibé conseil constitutionnel euh, xëy na suba dina ci sëgg mën cee indi tontu ñi nga xamante ne aussi mooy recours yi Karim Wade Cheikh Tidiane Dieye ak ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye loolu également ay recours la yoo xamante ne conseil constitutionnel ni nga ko waxee euh, suba mooy bésu dëgg bi et ñu ngi koy xaar mu dire le droit parce que loolu kese la Sénégal soxla ñu wax le droit wax ñi nga xamante ne war nañu mën a bokk ñu bokk ci élection yi parce que loolu moom mooy démocratie et loolu moom mooy taaral également élection présidentielle mhm. ñi nga xam ne am nañu dayoo war nañu mën a bokk ñu samp seen dënd Sénégal mën a def le bon choix le soir du 25 février 2024 Samsung bi nga xamante ne génne nañu téléphone bu yees muy Galaxy S24 euh, moom mooy téléphone bu njëkk bi nga xamante ni dafa am intelligence artificielle euh, buy euh, tax communication bi ci diggante ñi nga xamante ne bokkuñu kàllaama bi ñuy làkk mën a am mu mën a itam jël note waaye itam traduire ay message maanaam bataaxal yoo xamante ne bu nekkee ci benn làkk mu mën koo soppi def ko ci beneen làkk Galaxy S24 ñu koy jaay itam ci version yu bari waaye mu am technologie euh, photo ak vidéo bu mucc ayib euh, mu mel ni rek euh, assistant la ci ki nga xamante ni moom moo koy yore ñu onu ci ak Simon Faye ak Babacar Sow ak version yu bëri yi ñu ko defaree Galaxy S24 bu Samsung technologie dëggantaan la ak intelligence artificielle bi mu àndal téléphone bi wuute lool ak li nga xam ne moom la ñu gis ba fii ci marché bi. dañ ci def ay bagages yoo xam ne. tey c'est le seul téléphone au monde mun nañ ko wax bu ko am téléphone bi tey mooy le premier téléphone au monde bu am intelligence artificielle yow di nga mun a di waxtaan ak sa naataango boo xam ne yéen ñaar bokk leen làkk ngay wax ak moom téléphone bi di ko traduire directement ba yéen ñaar ngeen di mun déggante soo waree nekk benn réunion ak benn nit nga bugg jël ay notes téléphone bi automatiquement moom dina ko def pour mun la permettre na xam ne après doo sonn pour récupérer say notes wala pour mun a def benn résumé si loolu nga waroon wax. bu weesoo làkk yi mu mën a firi ba ku ci nekk mën a déggante keneen koo bokkulal kàllaama galaxi S24 ci wàllu jël photo ak defaraat ko amu ci morom. photographie bi composant yi dañoo baax ba pare tey dañ ci yokk intelligence artificielle bi client bi dafay mun dévoiler dafay mun yokk toute sa créativité par la photographie bu ñu def ci téléphone bi. ñu defar ko mu ànd ak taar rax ci dolli mu dëgër lool te mémoire am ngir denc ay données personnelles yaatu na. téléphone yi tey yu ñuy commercialiser dina am benn mémoire buy dem ba 512 gigas donc foog naa ni 512 gigas dina permettre nit ki mu mun a enregistrer lu bëri ci téléphone bi. Galaxy S24 ñu ngi koy jaay Sénégal ak offre boo xam ne boo teelee commandé lu ko dale fan wi njëkk ci weeru février wi ñuy dëkkmal di dinga mën a am ci xéewal yi te xéewal yooyee ak kado yi ñu jagleel ko client yu njëkk yi ci Simon fay liggéeykatu SAMU municipal nee nañu ay jafe-jafe yu metti la ñuy dund bés bu nekk ci seen liggéey euh, bokk na ci xaay bi ci jot seen ay payoor waaye itam ñàkk jumtuwaay ñuy amal seen liggéey ni mu waree euh, loolee taxoon ñu amaloon na ab toogaayu ñaxtu euh, ñuy sàkku nag ci ñu jëlee fa médecin chef bi waaye itam bureau exécutif bi yooyu la liggéeykat leneen loo xamante ne bëgg nañu ko itam mooy ñu auditer structure bi bu ko defee lépp gën a leer ñu ond ci ak ci réero bu dox diggante liggéeykat ak waa direction général bu sami municipal moo waral tey personnel bi defoon benn sitin ci wetu hôpital bi. mooy liggéey liggéey ba weer dee nga ñëw lu dul jël sa salaire ñu ni la signé nga signé. te sa état li ci jaaxal nit ñi nag mooy état nga fay fekk maanaam li nga waroon fay maa nga fay fekk ñu ne mooy nan la ñi fukki junne ñii juróom benn junne ñii amu leen dara.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 ñu wutali diwaanu Sédhiou wax ci gestion finance publique yi muy jafe-jafe bu mag euh, ci organe de gouvernance yi loolee tax euh, réseau citoyen pour la transparence budgétaire am na loon ab session formation jagleel ko organisation société civile yi nee nañu la ñu ca euh, bëgg mooy ñuy gën a mën di defar ay documents yoo xamante ni day ñeel wàllu budget waaye itam wàllu koom ñoonu ci ak Ibrahima Diallo ay acteurs yu société civile ak ay élus participé woon nañu ci benn tàggat si nu ñuy teggee budget waa réseau citoyen pour la transparence budgétaire ñu amal lu ni mel ci teewaay seen représentante di madame Ba Aïssatou Dramé gunge gouvernement bi ci li nga xamante ne mooy mise en œuvre donc des réformes des des finances publiques parce que jàpp nañ ni loolu mooy tax ñu am une gouvernance et une transparence budgétaire mais également loolu mooy tax ñu participer ñu ñu favoriser participation donc euh, citoyens yi ci li nga xamante ne mooy le processus d'élaboration du budget pour que li nga xamante ne vraiment moo nekk moo nekk ci gox yi ak gox xaat yi ñu mun koo saytu mun koo euh, jël euh, bu ko defee bu waxtaan yi tàmbalee ci wàllum élaboration budget leen koo jëbbal pour pour xamal leen ko réseau boobu nag li ko tax a jug mooy euh, par askan wi ñu mën a participer ci processus d'élaboration suivi ak mise en œuvre budget bi nga xamante ne ñoom ay contribuable lañ ndax ñoom ñooy joxe seen i taxes ak pour budget boobu mu a am mais tamit ay usagers lañu ndax budget boobu bu ko defee investissement ñoom tamit ñoo ci ñoo ciy njariñu ñi waroon bokk ci tàggat boobu kii di maam Ali Diallo nekk quatrième adjoint au maire commune bu Sédhiou xamle na ni formation bi lee tax na ba ñu gën a ràññee ay documents ak ay rubriques yu ñuy jël en compte bu ñuy taxawal budget ñu wax njàng meeg njàngale mi ak collectif bi ëmb jàngalekat yi nga xamante ne dañuy xeex lenteur administrative yi ñoom euh, déposé nañu ab euh, mémorandum euh, jëmale ko ci jëwrin bi ñu dénk njàng jàngale mi ak fonction publique njiitu collectif bi la mu xamle mooy xel dafa mënta nangu ñu déposé dossier lu ëpp juróom benn weer kën mënu ko traité te ñu toll ci jamono joo xamante ne xaral yu bees yi dañoo gën a xarañ collectif bi nee nañu boo moyul sax daañu amal ab toogaayu ñaxtu ngir ñu dégg leen ànd ci ak njiit la di Adama Ndiaye ci micro Alassane Balde ci jamono jooju ñu toll dañ war a créer des comptes numériques de dépôt et de suivi des des enseignants dootul yoon nga toll Tamba wala nga toll Kédougou di woote Dakar pour sa dossier fu toll na nga xam ne e-solde def na ko ngay cliquer xam sa bulletin salaire génn na mais foofu la ñu war a dem ngay cliquer xam sa dossier fu mu toll en temps réel parce que jamono foofu la toll. Euh, les élections passent le Sénégal reste kon li nga xam ne mooy resté nañ ko jàpp ñoŋal ko ñoŋal éducation ak formation parce que réew mu éducation ak formation sooxe mais réew moom ku leen dana jëm kanam mi ngi lay nax. syndicat bi ëmb jàngalekat yi ñoom itam ba tey ñu ngi xaar euh, li ñu leen dikk muy sàkkute fi ñu amoon ñu matle ko secrétaire général bu cadre unitaire syndical bi ëmb jàngalekatu moyen euh, secondaire yi moom mu ngay euh, artu Ndongo Sarr di sàkku ci gouvernement bi ñu sëgg kon ci seen ay sàkkuteef ñu déglu ko ci micro yu nu sabalde jàngalekat yi nga xam ne dañ leen jàpp jàpp yoo xam ne teguñu ko fet bi ci mujj mooy suñu benn collègue bu